marché Castor daanaka jaay lekk moo fi ëpp to ba jaaykatu lekk yi ñëw rek daanaka marché Castor gisoo kenn gis nga fi mu ne nii gisoo kenn ci mbedd mi kon daanaka ñun ñi jarul ubbi. wante lu toll ni marché mu nga xam ne ni commerçant yi moom si li ñuy yëngu toute l'année ñoon euh, du ñu ay salariés bon pour que nga euh, bàyyi du ñu euh, liggéey un jour sur deux xaw a daal. kon man sama tonne casserole boo dee damay xëy xëy du ko tëj xëy xëy ñaari fan ñetti fan loolu loolu solution. tey da ngay liggéey tey noppalu suba jaayaat suba noppaluwaat ginnaaw suba loolu tamit mu doon mu doon semaine bi nga ciy liggéey trois jours mu doon lu metti mu doon lu metti mu après day doon lépp lu ñu liggéey ci ay bénéfice dañ koy mujjee lekkaat ñun ñu koy lekkaat avant semaine bi di jeex. mbon loolu tamit lu metti la maanaam yaa ngi liggéey amul dara luy dugaat mais bu fekkee comme par exemple ñi nga xam ne dañuy réparer téléphone ñii di jaay cuuraay ñii di jaay cosmétique dañu may ñaari fan ñi ñuy liggéey ci semaine bi loolu wax dëgg yàlla arrangé wu képp kuy responsable wala képp kuy borom kër. mais nii bu ñu ko defee tamit day metti quoi vraiment parce que tamit ñun fii lañ am quoi amuñu feneen dañu bàyyi suñu kër ama ñëw fii pour daan suñu doole. état bi moom li mu def nii moom xamuñ xaw ma fu ñu jëlee xam bi moom mais du xam ah. ndaxte lii moom du yoon dañuy tëj marché bi ba pare grande surface bi dañuy ubbi te ñun ñu ngi nii grande surface lañ yor dañ ñoo tëj mais loolu du yoon fuñ teguñ ko fenn. est-ce que marché bi nga xam ne ne c'est ouvert à l'air libre gënul sur daal. waaw pour tëj ko soo leen tëjee dañuy dem ci grande surface te grande surface yi ñu ngi ne am na ay cas bon je ne veux pas daal waaw fii Castor am na fi. ñu ngi nii dañoo tëj supermarché bii nekk suñu wet nii. to autant ñu ngi liggéey. yi ci dëkk bi lañ dëkk. di di di dugal seen kii ci dëkk bi kon nañ xoolaat euh, seen kii taxawaay lii du benn solution nañ xoolaat solution bi waaw parce que lii bu bu tamit nii dinañ deetoo euh, corona du leen rey. doomi senegal yi ñu ñun ñoo moom suñu dëkk tubaab moomuñu yenn yi affaire politique da cee bëgg a dugg te loolu duñ ci ànd tey du ci ànd ëllëg nan seetaat ni ñuy def. man daal li ma doon daal mooy su noon nekk ñu liggéey maanaam demi journée. suñu liggéey ba 15 wala ba 13 heures ñu arrêté chaque jour waaw. te aussi xama xanaa xamoo ne bu ñu tëjee marché bi tey waat ko suba suba bu ñu ubbee fuul bi day amaat day amaat fuul ndax loolu la ñuy daw ñun fuul la ñuy daw ba pare ñoom dañuy créer fuul parce que lundi ak mari bi ñuy créer noonu fuul la ñuy créer.